wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu fexe ñëw ak yéen ñu ngi fexe ñëw ak yéen ci téere bi nga xam ne moom leen wax matina al arbaina arbaina nawiya kon téere bi tax ñi koy jàng ndax yonent bi moo ne képp ku mokkal ñeent fukki xadis keroog yowmal xiyaam ci yàlla dëkkil jaami danañ la boole si soppi mboolam borom xam-xam yi te am na oto yu mu ne kon te ñu fexe ñëw tàmbali bi nga xam ne moom leen wax arbaina annabawiya annawiya ci bi mooy darsu awal bi mu ne darsu awal bi nag mu ne an amirul muminina jëree neen ci buuru jullit ñi jëree neen ci buuru jullit ñi buuru moom la ñu wax amirul muminin kon li tax ñu naan ndax aboubacar yonent bi ba mu génnee àddina sallallahu alayhi wa sallam aboubacar moo nekkoon xalifa yonent bi ñu naan ko xalifatu rasul mooy xalifa yonent bi mooy xalifa yonent bi xalifa moom leen na wax aboubacarin waaye omar ba mu nekkee xalifa kon dafay gudd ñu naan ko xalifatu xalifatu rasulillah loolu dafay gudd moo tax ñu daggantule ko amirul muminin kon dafay guddi ñu naan ko xalifatu xalifatu rasulullahi waaye moo tax ñu naan ko mu ne abi xafsin te mooy baay xafs moo nekkoon baayu xafs mu ne amara te amar bun xataab doomu xataab radiyallahu taala anhu yal na ko yàlla mu mu tedd mi kon amir Omar bun Xataab mooy na kon baayu xas te moom lañ doon wax amirul muminin mu ne moo xaar moom nee na samextu dégg naa rasulullahi rasulullahi yonent bi salla yàlla doole xewal allahu yàlla alayhi suma wa sallama tamu dooleku musal nee na Omar nee na dégg na yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi wax naan innamal a'maalu naka jëfi bi niyaatin ci ay yéene la jëfi ay yéene la jëf bu nekk am na lu ci borom yéene niki julli sax su koy def am na lum si yéene benn yéene si julli ngir yàlla te yàlla tax comme ko digal wala benn yéene na si def ngir jublu nit ñi gis ko kon nit ki lépp lu muy def rek am na lim ci jublu am na lim ci yéene kon fekkee na nit ki day day joxe asaka sax am na lim ci yéene benn mi ngi koy joxe ngir nit ñi gis ko mu xam ne xam ne mi ngi joxe wala benn mu koy joxe ngir te yàlla sax rek kon nit lépp li ma def rek am na yéene mu ne way nama li kulli li kulli neel ne bépp nit maanawaa lam yéene ni ku nekk lam yéene si jëf-jëf la nga koy fay yow ba ngay niki ba muy julli su fekkee ne pour wanewu moo tax su fekkee ne ba ngay julli yow nit ñi gis la rek nga si yéene woon kon kooku defut ngir yàlla yàlla dana ko fay jëf ji bon def niki su fekkee ne ba mu julli ngir yàlla rek moo taxoon si booba yàlla dana ko si fay ndax li mu def jëf si baax la kon nit ki su defee lu baax yàlla def fay ko lu baax su defee lu bon yàlla fay ko lu bon moo tax mu ne innama li kulli mrim wa innama li kulli mrim maa nawaa nit ki li mu def rek lañ koy fay mu ne fa man kaanat képp ku nekk hijratu gàddaayam ilallahi jëm yàlla wa rasulihi ak yonentam fa hijratuhu gàddaami ilallahi jëm yàlla wa rasul jëm si kon nit ki lépp lu su gàddaayee jëm yàlla nee na képp ku gàddaay jëm yàlla gàddaayam jëm yàlla ak yonentam wa man kaanat képp nekk hijratuhu gàddaayam li duniyaa ñeel àddina yu siibuha dana ko jot mu ne képp koo xam ne gàddaayam àddina rek dana ko jot dana ko kon nit ki su fekkee ne àddina rek moo tax àddina rek lay ut su boobaa am dana am àddina mu aw imraatin wala jigéen yankewooha dana ko seet su fekkee ne jigéen moo tax mu gàddaay tamit aw imraatin wala jigéen yankewooha bu a takk fekkee ne jigéen moo tax may gàddaay su boobaa jigéen ko bëgg a takk rek mun na am kon dana ko takk moo tax mu na fa hijratu gàddaayam ilaa ma haajara lam gàddaay ilay jëm si moom niki lum gàddaay jëm si moom rek mun naa am loolu lay am mu ne rawaa solo na hadis bi imaamul muhaddisiina ñaari imaam solokatu hadis yi abu abu abdullahi mooy baayu abdullahi muhammad bun ismail muhammad doomu ismaila ibrahima bun ibrahima doomu ibrahima bun muxiratin ibrahima doomu muxira bun bardisba doomu bardisba al buxaariyu te mooy buxaariyu mu ne waa abu xuseyn ak baayu xuseyn muslimun te mooy muslim bun xujaaj doomu xujaaj bun muslimin al xuzayri an naysaburi doomu Xusayri doomu Muslim Xusayri Naysaabuur na fi saxiima si leen seen lu wér seen ñoom ñaar ci seen ñaari wér seen lu wér yi alladina mooy ñaar ña nga xam ne huma ñoom ñaar asaxu kutub bi ñoo gën a wér téere almusannafat yi almusannafat yi duñ taalif kon hadis bi lim noonu la limal léegi mooy famille Bukhari ak famille Muslim kon xadis bi Bukhari ak Muslim ñoo ko solo kon lii lu ñu mokkal la an amir almuminin abi xafsin Umar bin Xataab radiyallahu anhu qaal sami'tu rasul allahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innama al ahmalu binniyaati wa innama li kulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha أي امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه الإمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن بر إبراهيم بن مخيرة بن بردسبة البخاري وأبو حسين مسلم بن حجاج بن مسلم القزيري النيسابوري في صحيحهما اللذين هما عشر الكتب المصنفة kon li moo nekkoon xadis bu njëkk bi dañu ñëw fexe yéen ak firi ak xadisu ñaareel bi in uridu ila al-islam mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu